أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم asalaamualeykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci sayiduna Muhammad sant sunu ñaari waajur noo ngi ñëw tey ci turu sëriñ Fallou Thiam fas leen yéene yottali li nga xam ne tey moom la ñu jëlee fii ci xabru Mame Samba Thiam bi mooy que ne bés ni tey jël na desiyon boo xam ne bii waa kër Mame Samba Thiam yi fal sunu baay sunu najaay sunu maam sunu lépp muy sëriñ Mourchid Ahmed Iyane Thiam muy xalifa maam ma Samba Thiam lépp loo xam ne lii bëgg na ko walla xalaat na ko wala junj na ko bu ko joxañee incha allahu ñun sët doom yi danoon dagg loolu ginnaaw bu loolu jàllee aussi itam mbooleem dëkk yi nga xam ne ñoo fi daje tey war nañu mat trois cinquante personnes muy Sénégal di Mali di Gambie ñëpp daje nan fi biñ fi dajee nag fal nan fi benn bureau boo xam ne bii mooy sët yi li nga xam ne lii moom lañu bëgg di ko liggéey bureau boobu incha allahu muy assemblée comité directeur bi suñu fi jógee incha allahu buñ amaatee beneen assemblée nationale fa ni fale lépp loo xam ne lii ñooy entouré sama papa pour ñu liggéeyal Mame Massamba Thiam liggéeyal jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal yëpp ñoo ngi sàkku fu waay mën a nekk lillaahi wa rasuli ñu xam ne Mame Massamba càmm mooy ki nga xam ne kii moo fi def lu kenn defut wax fi lu kenn waxut nekk premier nègre africain boo xam ne bii moo fi jàngal képp koo fi gis ñu koy sukkal wala di ko raamal Mame Samba ci am am na lu mu def ci yow li ci des nag dañu koy bàyyeek sunu baay muy cant yeeg ngërëm yeeg ñaan yi incha allahu rabbi moom mu àggale ko bi xormati seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam yal na nu yàlla defal dégg ak topp li si des ma bàyyee ko moom wasalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yu tedd yi. yéen sumay mbokk ci dajeb tey bii muy sëtu Maam Masamba Caam yi lu jiituma leen di nuyu ma jëkke kilifa yu tedd yii fi ñëwal ay kilifa wuutu leen fi rawatina nag njabootuk sëriñ Muntaxa Bachiru Mbacké xalifa général de Mourides doomam ma ngi ci ma ngi ci délégation bi ay doomam ay rakkam ñu ngi ci délégation bi ay taalibeem nag ñëpp ngi ci ak jëfam ak jëfiinam moom sëñ Muntaqa mësula jog ci waxtu wu ñuy dox ci lislaam moom ak nattangoom yi nekk ci réew mi noo ngi leen di gërëm di ñaan yàlla mi dara tëwul yàlla buur yàlla tàggatal leen seeni soxla yàlla buur yàlla tàggatal leen mën a yar seeni bi ba ñu mën a jëriñee ngir nun ñëpp ñu bokk mën a jëriñu ci borom bu tedd bi subhaanahu wa dooleem délégation yi fi ñëw fi ñu jógee bari nañu gannaaw délégation religieuse yi ma wax waaye kilifa yi fi yónnee ay ndaw bari nañu te bu ma leen fi doon tudd tey résolution bi may wax nii du sot kon nag ñëpp nu ngi leen di gërëm moo ma gërëmee sëñ sëriñ si dañoo baax boo ci gërëmee kenn kenn ku ne ci ñi des boo leen tuddul itam kenn ku ne nangu na ne gërëmaale nga ko. ndaxte kenn ku ne bëggal nga sa morom li nga bëggal sa bopp moo tax diini ji yàlla teg ci seeni loxo ku bañ loolu yaay sonn rek yàlla moom li mu def moo am kon yéen mbokki assemblée générale ma surtout Mame Massamba Thiam yi teew tey tax nu teewe def liggéey bu mag bii maa ngi leen di gërëmati di leen di leen di leen eh, ñaanal ci sur rawatina di yéemu ci liggéey bi nu fi def ah wax dëgg yàlla man xamu nu may def bu ngeen dajaloo fal ma xalifaab maam ma Samba Thiam ñi ko ñi ko ñi ko gën a mën a ñi ma ko gën a nekk fuuf ñu ngi fi ndax dëkk bi maam ma Samba Thiam jëkk sanc mu tëddoon tëbi lëg doomam yaa ngi fi alaji caam ñoom tey mooy tey mooy caamen kajoor caamen kajoor Ah, loolu bu ñuy ñi ak mboolem dëkk yi fi ne ak kilifa yi fi rawatina nag xalifaab Ibrahima Kellel dëkk Caameen Waalo gis ngeen ci genn Caameen a ngoog te kenn ci surtout maam Samba Caam yee ko fa def kenn ci xalifaam Ibrahima killel boobu nag muy muy Alaaji Demba Tabara mu ngi fii toog te yaakaar naa ne sax moom kon moom moo waroon a nekk xalifaab maam Samba Caam waaye xam naa ndeysaan nit moom bu baaxee tabi ci tabe tabe lu nekk dana ko joxe te tabi goo gis tabi ci dara ji moo fi gën a jafe waaye nga pour nga nekk nga mën a nekk xalifaab maam Masamba Thiam nekkuloo ko jox ko keneen koo xam ne kii jàpp na man jàpp naa ne ëppale wu la dara au contraire ngëneel yëpp yaa ko ko ëppale kon bu ku mel ni yow boo nangoo ñu ne nañ def Ahmed Iyane Thiam xalifaab Masamba Thiam te eh, li ma am yëpp yaa ma ko ëppale ah, kon day aw sas lu aw sas wu rëy la rek waaye danaa ko jéem a béy ba léegi incha allahu assemblée générale bi décidé na bu ci yàlla àndee wala boog noo ngi koy ñaan borom bi ne danañ fi def jàkk assemblée générale bi décidé ne fii ci Thiamène Kajoor mooy fii mausolée Mame Massamba Thiam ne danañ fi def jàkk joo xam ne ji ko fi ñëwati ah, da nga am foo jullee danañ fi def itam kër goo xam ne kër mag moom la ku mag rek ba yàlla def nga nekk xalifaab Mame Massamba Thiam nga boo fi ñëwee nga am foo dugg wala boo fi yónnee ki nga fi yónnee am fu mu dugg wala ko boo nit nekkee di wattu xabru bi xam fu mu dëkk xam fu mu am loola fas nañ yéene defar ko xabru bi mosole bi ak jàkk ji ak itam nag kër goo xam ne ah noonu lañ koy gan gu fi ñëw man fee ne bu baax a baax ñetti mbir yi fës nañu yéen a def ko ñiñ ci yaakaar nag ñi ci ëpp doole mooy ñi nga xam ne ñoo jiite diini ji te dégg ngeen ko euh, délégation bi sëriñ Mountakha Bassirou Khadimul Moustapha wax bi jiite woon délégation xalifa bi li mu wax leer na nañ kon nun koy euh, euh, bu xam naa su doon man sax bala ko wax danaa ko noppal sinon dañuy faf tayal ci def li ñu war a def ngir tabax li ñu war a tabax ndax la mu wax buñ ko déggee rek dañuy tayalati ku toog rek da nga yuut nu ah sëriñ bi kat nee na dana nangam kon boog lii assemblée générale bi décidé na ko fi war ko fee def war fi def war a def nag asa at mu jot mu daje fi at mu jot mu am benn daje boo xam ne ñi danañ ko gën a waajal ñëpp a ñëw nu so jéem a xalaataat lu nuy def jéem a seet li ñu fi defoon ndax baax na wala déet mooy assemblée générale bala ngay tabax jàkk tabaxal jikko boo tabaxee jàkk te tabaxoo jikko ka fay dugg te amul jikko lu kenn xamul rek la fay def ci jàkk ja kon tabax nit moo jiitu lépp wax nga jërëjëf lii nag kon bu noppee noo ngay feddali sunu moy ci wëllërey maama Samba Thiam yi am ci suñ mbakk bu su def ko bind ko jébaane ko wëllëre yooyu bari nañu lool ndax koo xam ne yaa jëkk jàngale lislaam ci réew mi te ki ko wax kenn du ko weddi muy sëñ Mbàkke Buso dama ne kon nu nu décider nag nun sëti ma Samba Thiam bi gën a mën a wó feddali nag wóllërey Maama Samba Thiam ak ay bokkam bari nañu lool ñi mu amal wóllëre waaye maam maarama ci jiitu Moxtaar nu bi Joob topp ca Demba Fall bu Pire topp ca waaye laykan yi topp ca fukki nit lañ yoo xam ne sëñ Mbàkke Bousso moo leen lim ci bu mu bind adressé ko Baye Niass Cheikhul Islam te moom mu bokk ci surtout maam Masamba Thiam yi ndax xujja noote mi nga xam ne moo jur Alaaji Abdoulaye Niass ak Ibrahima Kellel dañuy wax xujj noote waaye xadijatu wala xujj wala xadijatu la ñuy wax euh, ci téere yi nag ak ñi bind histoire ñoom xujj noote la ñuy wax moom nag moo moo jur xujj noote moom moo jur alaaji Ibrahima Niass baat ma baal leen moo jur alaaji Abdoulaye Niass moo jur Ibrahima Kellel alaaji alaaji Abdoulaye Niass moo jur borom xam-xam yu rëy borom may yu baawaan ya borom xam-xam ya muy maam Khalifa Niass bara may yu baaya baawaan ya muy baay cheikhul islam alhaji Ibrahima Niass ak yeneen doom yu tedd yi borom xam-xam yi ñëpp fa tabarakallahu ñu ngi bokk ci ay sëtam waxuma la sëtam waaye sëñ Mbacke Bousso la wax ci lettre ba ba mu ba mu ba wax ji rëy na te feeñal na mbaaxu bii famille noo ngi seedeel adduna ne ñun sëti maam Masamba Caam yi loolu nag ñëpp sax la war waaye gannaaw noo fi daje danoon wax li bëgg a def rek nun sëti maam Masamba Caam yi fu lislaam ne fës na nu teral ko fu lislaam woote fës na nu yéene fekk fekkata fa fës na nu yéene lislaam mooy bokk gi gën a dëgër ci diggante jullit yëpp jàpp ne man yeb taxi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يلا كو وقت لم وخ موي دغ موي نانو سي الإسلام بي الإسلام بي نك موي ماندو l'islam boo ko déggee mooy baax ragal yàlla l'islam boo ko déggee mooy bëgg liggéey sawar liggéey bàyyi na sax l'islam soo ko bëggee mooy gore l'islam soo ko déggee mooy euh, euh, loo loo bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom lislaam soo ko déggee nga gëm na yàlla nekk fépp moo ne ci kanam gannaaw ndeyjoor càmmooñ ci kaw ak ci suuf kenn du def lu mu xamul boo fi nekkee sax nga ne kii def na ma mere naa ko maa ngi def li maa ngi def laa yow tuuti ma ne da ngaa yab yàlla ndax ku lay fexeel fale te xamuloo ko te dara du yëgut ci kaw suuf lu dul fekk yàlla xam na ko balay am bala yëngatu sax bay ba muy ba ba muy yëngatoo bala ba muy bëgg a amee loolu lépp lu ci nekk mais étape yooyu yëpp yàlla xam na ko yow nag boo déggee rek ñu ne diw yab na la ma ngi lay wax ku bon ñëw di la booleeg moom nee na nga tey ma rey ko wax na ma nangam yow da ngaa yab yàlla nga foog ne kon ko loolu ñu la wax rek nga ne tey nga nangam ko te nga foog ne xanaa yàlla xamu ko te yàlla moo ne na maa gën a mën a dindi tooñ maa gën a mën a farle ku ñuy tooñ maay maandu turu bokk na ci turu yàlla yi le quatre-vingt-dix-neuf maay maay ki maandu ala addulu kon boo jàppee ne kii wax nañ la ne wax na rek yow ki la wax xamuloo kana booleekat la jaxasekat la ku bon la rambaajkat la ñëw na rek wax na la nga ne aywa yow itam gëmoo yàlla te xam jàpp nga ne yàlla melul ni ñu wax boo jàppoon ne yàlla ni ñu wax la mel nga ne ah yàlla fekkee na ko bu ko bu defee yàlla xam na man yàlla moo ma gën a mën a fayul moo ma gën a mën a def kooku bu ko defee te man man man lu dul ñu ñu nit ñi wax ma te xëy na sax kooku day fen yàlla yàlla kay euh, gannaaw mu nii la mel man bàyyee naa ko lépp yow xam nga ku mel noonu ku gëm yàlla dootoo am noonu parce que lu ci nekk yow li la gën a war a yitteel li ma yàlla sant naa ko def ni yàlla bëgg ma mel ko naa ko maa naa ko jéem a mel naa wóolu yàlla fi mu ma féetee waaye lu ne fu fu yàlla fara féete nga ne tey ma defal ko sama bopp tey ma def nii tey waaye bala ngay tekk léegi loolu da nga xam ne doo dara da xam ne mënoo dara yàlla rek a man loolu nag la ñu maam Masamba Thiam jàngal bennoo ci diini ji bëggante ci diini ji dimbalant ci diini ji diine gën laa saf lépp ci lépp yoonu diine gën laa ñor ci lépp boo ko defee da nga xam ne yaay da nga jékki-jékki rek ëpp doole ñëpp te doo xam doole ji ku la ko jox lu la ko jox ah kay da ko xam kay soo amee soo xamee li ngay def danga xam ne yàlla moo la ko jox yàlla ku ko nekkal mu nekkal la bokk yu tedd yi tey bokk yi fi daje ak yéeme man mi xam kenn ku ci nekk dëkk boo jóge sa baay ja jama ci xamoon ak sa maam jama xamoon ma jékki-jékki ñu daje fii ci kaw tund wii maam Masamba Thiam nag fuutanke la tukulóor la mu jóge fa demati alwaar sanc alwaar jur fa maxtaar ak alfa mamadou alfa mamadou moo jur fatimata buubu fatimata buubu moo jur cheikh omarul fuuti waaye fatimata buubu moomu moo jur ay si buubu ak maxtaar buubu maxtaar buubu di dem ba faf jur tamba demba tabara ah, eh, di dem ba faf jur xujja xujj moomu ah faf jur Alaaji Abdoulaye Niass ak Ibrahima Kellel maamu kii kon njabootug Ibrahima njabootug maam Masamba Thiam boo demee Fuuta ay tukulóori kese lañu nga ñëw ñum ay tukulóori kese lañu waaye kii boo fa paasee ñëw Kajoor dem Jolof dem ba Saalum nga fekke fa kër ñoom Serigne Mbaye Thiam ñoom muy Mamba Samb Tické Tické kër ga kër ga tey noonu la tudd dëkk bu mag bu yàgg la Mamba Samb Thièque tey dëkk bu rëy la bu yàgg kenn ci sëti Mamba Samb Thiam yi lañ ko tudde ma ngi bokk ci sëtu Mamba Samb Thiam yi ah bokk yi ki nu bokk ak ñëpp a ko bokk bu nu yàlla mayee nun nu gën cee am jot di jog ngir tabax nu sante borom bi suma ma toppee su bëgg-bëgg ah, wax dëgg yàlla damay dem rek waaye maa ngi leen di jéggulu tey jii délégation wu sëriñ si ñëw nañu fii ni ma ko waxee waaye rawatina sëñ Muntaqa Bachiru Xadimul Moustapha ñoo ngi gërëm yàlla noo ngi sant yàlla di ko gërëm moom ak yéen mboolem mbokk yi jëbootu maam Samba Thiam góor ak jigéen mag ak ndaw kii nga xam ne nag ba ñu defaree tabax ba mu aval lu jiitu may tabax mosole bi moo volontaire nekk fi ba tey jii luñ fi organiser buñ fi añee luñ fi mën a def mooy jóg xawma keneen ku dul moom di fii mooy jóg lu ne mu def ko baas lu ne moo koy ni man xaw ma wax dëgg nu mu koy ni te amul jaaxal na ma mooy ma tudd ko te tudd ko mooy ñaanal ko ma faal caam mooy ñaanal ko ah di gërëm nag elimaanu ratib bu dëkk bi foofa laay teerale elimaanu ratib bi ma ngi nii toog mu di ko xam ne taalibi xaadimul Moustapha la li ma gën a neex ci dëkk bi mooy ñi sant Njaay ak caama fi ne ci dëkk bi ñi sant Njaay ak caam ñëpp surtout maam Masamba Caam lañu ñee ñi sant Njaay ci wàllu yaayam la ñi sant caam ci wàllu baayam la seetal bii dëkk njaay ak caam fenn foo mën a dem doo fexe ba ba doo jàpp ne am nañu waat nañu amug mbokk dëkk bi di ñoom ñoom ñoom ñoo fi ne ñooy suti maam Samba Thiam yi kon nag yéen euh, presse bi du ma sax wax man ne amu lu ma leen fayee waaye ñi leen di liggéeyloo ci seen bopp ñoo amul lu ñu leen fayee waaye xam naa ne yéen ci seen bopp ñi ciy liggéey xamuloo ne liñ leen di fay du dara ndax yéen a ngi defal bindeef yi nit ñi loo xam ne bu ngeen amul woon kenn du leen ko mën a defal te ko danañ jaaxle lu nit bëgg a xam lu nit bëgg a gis lépp da ngeen def lu ne journaliste ñu fi gën a deñ kump moo xam fay nga leen moo xam fayuloo leen waaye bu ñu xasee jóg bay def seen liggéey moog jaamu yàlla lañ yemale. te lañ cay def bëgg nañ mu rafet mu baax ba nga xam ne ku ko gis ne askay même soo ko fayul kon nag pour ngeen xam ne lii ma wax nii moom li ñëpp xam ci yéen moom la ñëpp it xalaat ci yéen moo tax man ma leen di yokk suma suma suma ñaan di ñaan buur bi tedd bi kenn ku nekk ci la muy liggéey la ñu demee àjjana di ñaan bur bu tedd bi yan na bur yàlla jàppale leen yal na bur yàlla tàggatal leen seeni soxla ak yu mu mën a doon lu ñu rëy rëy ngeen def ko yan na bur yàlla tàggatal leen ba nga xam ne li ngeen bëgg liggéey ci presse bi ak li ngeen ko bëgg a liggéeyee yal na ko yàlla def ngeen am ko ci na mu gën a gaawee maa ngi leen di gërëm de neexaluma leen